moo tax coow yii fi dox yépp war nañu ci jële jàngat le 3 dafa am lu président de la république def perturber calendrier électoral assemblée nationale am lu mu def réew mi di bëgg a tàkk ci suñuy loxo conseil constitutionnel ñëw jël dogal yëf yi tàkk état ak état de droit noonu la war a doxe mais dafa laaj ay kilifa yi ko séq am dal am sérénité ba xaar ba li war a jib lépp jib ñu soog a àddu je me vague d'indignation de colère de condamnation au plan national comme international qui a suivi la perturbation du calendrier électoral soit aujourd'hui remplacé par une vague de louanges et de satisfaction au plan international comme au plan national suite au jugement insusceptible de recours rendu par le Conseil constitutionnel qui a fermé les Donc, dañu ñëw pour signer pacte boobu pacte boobu lii ñuy signé fii pàcc la ci di dalal seen xel ci ne yàlla moo xam kan lay jox mais ñun daal li ñu ci war te mooy yéene ak pas-pas bu mat sëkk ak def li ñu war a def lépp ak li mu laaj lépp ci sacrifice bu fekkente ne dogalu yàlla tàbbi na ba réew mi tege ci suñu loxo lii ñu signé ak yéen tey du ngeen ko réccu incha